est-ce que li ngay wax ni euh, c'est une façon à vous de de de lancer benn message à l'État pour ñu gën a mën a dugal seen loxo ci football sénégalais. suñ ko defee c'est dans l'intérêt du pays parce que gis nañu retombées yi ñu am pendant la Coupe d'Afrique et c'est bon aussi pour la jeunesse. suñ ko deful. suñ ko deful c'est c'est une perte on verra parce que là on a aujourd'hui des preuves qui sont là palpables il y a des garçons qui prennent la mer qui parce que amatuñu yaakaar. mais mais jàppoon ne état bi dafa miser beaucoup plus sur l' équipe vitrine l'équipe national au détriment des clubs par exemple parce que gis nañ ni bon chaque campagne ils mettent des milliards alors que club yi ñu ngi souffrir à côté. waaw mais état bi déjà def na ay jéego yu bare ci wàll boobu. Mhm. mais aussi tamit ñun les acteurs ñoo war a mun a gën a pousser état bi pour mu agir davantage dans les clubs mais qu'est-ce proposé à l'état le président Macky Sall nous a tendu ça mais depuis 2019 bi ñu koy wax faites-moi une proposition ah oui faites fet vous faites une proposition alors. alors mais defuñu dara amul benn document buñ ne tey. Uh-huh. yëkkati nañ ko jox nañ ko ko ne ko am. lii mais lu tax loolu lu tax loolu. liggéeyuñu am du ñëppay liggéey ñëpp liggéeyuñu c'est ça le problème ñii dañuy liggéey ñii liggéeyuñu nekkuñu assez réglementaire ci ci forme yëpp loolu lañ loolu aussi c'est c'est c'est y a des questions de formalité gis nga wax du ci club bi kese mm-hmm. xam nga loo gis ci àdduna dafa am lu ko jiite li ñu ko jiitee tey Ligue Pro war na mën a génneen un document mm-hmm. ñoom ñoo ñoom ñoo ko ŋànk mais fédération war na génne un document ñu mën ko synthétiser xool lan moo nekk ñu ne rapport baa ngi nii lii moo fi nekk club yi waaw ñu teg ko ci table bi nit ñi xam ñu ne ndax état bi dans le cadre de la formation professionnel su fekkee ne club yi am nañu lii am nañu lii am nañu lii parce que dafay am aussi tamit lu ñuy teg ñu ne la léegi club bu bëgg a bénéficier de la subvention de l'état condition yii ngay remplir soo ko amulee tu n'es pas partant. doo ci mën a bénéficier. alors.